ne kon dugg na nag euh, ci biir àdduna gis nañ président de la république def na déclaration waaye jël na tamit ay mesures am ngeen yaakaar ne bi yoon moom du doon ay diggee kese. waaw euh, maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi euh, di wax rek ni que wax dëgg yàlla fii ñu toll nii jàpp nañ ni Sénégal moo soxla ay doomam te président Macky Sall jël na ay ndogal ñun nag ñi ngi koy gunge ci ndogal yooyu di xool fan la wànnent di mujjee ak ay gëtam ndax euh, du ma ne li muy wax dina ko def wala du ko def waaye gëm ni daal dina ko wax rek def ko daf ñuy jafe lool ndax dañ fee nekk ak moom 2012 ba léegi moom ay kàddu yoo xam ni yàgg na ko di yëkkati te fudaas daal di xërëm euh, daawul mujjee fenn ba nga xam ni tey dina jafe lool mu wax rek ñu gëm ko waaye nañ ko gunge rek ci li mu bëgg ba xam fan la jëm ak ñun fan la jëm ak ñun ñu des ci wàllub euh, ndimbali parce que nag ñu baree bari seen liggéey moom fi mu nekk nii lu yàlla xam doy na 9 heures quinze heures am na ñoo xam ne sax balaa ñoo yegg 10 heures jot est ce que ñuy liggéey itam amuñu ay risques chômage technique bi fii licenciement bañ dégg na sax njiitu réew mi moom est ce que du changer euh, code du travail. waaw euh, loolu lu am solo nga ma laaj noonu ba pare ñàkk liggéey bi. Euh, salfaaño bi nga xam salfaañee feebar bi salfaañe ne ko koom-koomu réew mi sax balaa moo yegg ci liggéeykat yi dafa nekk lu doy waar ñun euh, suñu position en tant que mouvement de la société civile mooy demande à ce que propriétaire de société yi grand patron yi de grand na nañu xalaat liggéeykat yi nañu yërëm liggéeykat yi ndax euh, ku liggéey ay ati at ci benn kër nga yeewu ndax jàngoro am na rek nga ni mbir mi na fi yem parce que ñun ñëpp ko yëg loolu day nekk lu doy waar sànq daf mel dama la dégg ngay wax balaa ñoo jëm ci confinement confinement ñun bañuñu ko waaye Sénégal ndóol bi daf fee samp drapeau ñun ñëpp a ndóol balaa ngay yóbbu nit confinement da ngay jël ay mesures d'accompagnement. ah mais yim jël da ko xeeb. waaw xeebuma ko mais execution bi moo ma tiital. amoo du caagin aw ma ci yaakaar. dama koy transparence bi transparence loolu kenn waxatu ko. xam nga politiciens yi dañoo tàmm bu ñuy séddale seen kër lañuy njëkkee bu ñu génnee seen i kër dem seen i mbokk bu ñu génnee seen i mbokk dem seeni i militant waaye nag xanaa ngal ngir yàlla ak réew mi fi mu toll xanaa nag war nañoo gore xam ni Sénégal ñépp ndóol fi mu toll dégg naa sax ñuy wax ville de Guédiawaye du ci bokk ville de Dakar du ci bokk Pikine du ci bokk Rufisque du ci bokk waaw may wax rek président Macky Sall xanaa xamul ni ndimbal boobu noonu ñun ñoo ko gën a soxla ñun ñooñu ndool bi fi mu nekk feebar la bu wër. mais ministre bi rectifié na ko de nee na gars yi bàyyiwuñ ñenn de parce que affaire fépp ci Sénégal. waa fépp ci Sénégal bu nekkee ministre bi rectifié na ko kon alhamdulilah waaye li ñu bëgg daal mooy alal bii nga xam ne mi ngi jóg te ñu war ko seddalee doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo ko yitteewoo yal nañ ko teg ci lu jub ci lu leer maanaam transparence parce que bu dul loolu kenn du ko nangu. amoo confiance daal maanaam ci politique yi. mais musuma ñàkk confiance moo tax musuma ànd ak ñoom ñàkk confiance moo tax bokkuma seeni parti ndax jubadi nañu ba pare dañoo ñàkk yërmande ci askan bi ay Aydara Karara bu nekkoon ni président Macky Sall yow na ngay xoolee bët ba ngay xoolee say doom ma koy xoolee samay doom bu xoolee woon askanu Sénégal bët boobu tey lii yëpp doom. waaye gis nañ ñi ko yërëmuñu gis nañ ñi ko yëguñu ñu gis nañ ñi ko faalewuñu ñu mais bu lii amee ñu dellu bëgg nag ñu déglu leen te gëm leen day jafe waaye comme que feebar bi ñun ñëpp la concerné ñun dañ leen di gunge rek lu ñu wax ñoo leen ciy njëkk ba ñu seet fan la ñuy mujjee. armée bi nga xam ne nag euh, président woo na leen ci ci wàllum séddale dundu kon yow d'accord nga ci. waaw dama cee d'accord ba pare kontaan ci ndax euh, nit. yow mënoon ngaa dem armée demu man mënoon naa dem armée daw ma ñoom dañoo tànn dem armée dem armée mooy ni que fa la patriotisme mën a yem nit kiy wane ni dafa bëgg réewam dem armée fa la mën yem parce que réew mi buy dem guerre yow yaay njëkk a dem pour xeex sa bakkan mën na fa rot kon ñooñu am nañu njort ni que ay nit ñu jub lañu am nañu njort ay nit ñu bëgg réew mi lañu am nañu njort ni que séddale bi ñu leen dénk dinañ ko jaarale fañ ko war a jaarale armée bi ma président Macky Sall moo tax mu xam xam na lu tax mu dugal ci armée bi parce que politiciens yi la nit ñi wóolootul ba tax na ñoom la nit ñi fal de waaw ñoom la nit ñi fal te ma nangu ko parce que est-ce que nekkul ne tamit ñoom ñoo gën a maîtriser tamit ah waa armée boobu ngay tudd tam seen askan waaw parce que maire ci dëkk mhm. xam naa du bokk ak benn soldat bu jógee fale rek ñu ne président ko yónni yow ni ngay xamee waa dëkk bi en tant que maire mhm. ah say waaye soldat bi wóor na ñépp ni farul fenn furul Sénégal farul parti farul waaw même rek faree tamit ci parti itam mais moom nekk na maire comme Macky Sall tey 42 pour cent yi ko votelul tamit mhm. moom il est le président de la république de de tous les nangu naa waaye dama la bu wax que ni tey fii nga dëkk muy Géejawaay maire bi Aliou Sall bu ñëwee di séddale ay ñoñam lay njëkk a séddale alors que militaire bi bu ñëwee xamul loolu dañ ko jox ordre ko séddaleel géejawaay waa géejawaay yépp lay séddale dem ñibbi parce que moom Sénégal la faral farul ci parti farul feneen furul askanu Sénégal ñoo ko ñor ba mu pare tayle ba kanam pour aar leen kon kañ kooku moom ñun ñëpp a ciy d'accord te li tax pour man son excellence le président Macky Sall jël décision ne armée ñooy séddale moom ci boppam wóolootul politiciens yi waaw loolu la firi loolu la firi waaw bu nekkee 58 pour cent moom moo ko am ci réew mi yore majorité assemblée euh, association des maire du Sénégal yore fa majorité au conseil des collectivités territoriales yore fa majorité mais pour lan relais yooyu yëpp utiliser wu ko dañuy waxtaan rek armée bi nga xam ne suñu kaaraange la ñu war a aar ci jamono jii war a superviser couvre-feu bi mais pour lan ñu leen di jël di leen ko jox pour ñu séddale ko. est-ce que amul problème mu bras. déedéet du problème logiciel bi du problème mu bras ci war a jàpp. logiciel transport bi yóbbu. logiciel ba mu déployé woon. ba dem élection yii 2019 pourtant APR euh, Benno Bokk Yaakaar ñu woon fépp fépp ci Sénégal logiciel boobu an logistique boobu anamu question de confiance la askanu Sénégal ñoo wóolootul politiciens yi loolu yaakaar naa kenn dot ko lam-lamee président Macky Sall il a si bien compris mu dem jël armée et tant mieux ñun d'accord nañu ci li armée di séddale mbir mi parce que armée moom bu koy séddale ku ne li nga war a jot di nga ko jot d' accord léegi ñu ñu ñu des nag ci loo xam ne tamit am na lenn loo xam ni waa forum civil ñoom Birahim Seck souligné nañu ko mooy ci wàllum appel d' transporté transporter denrées alimentaires yi ñu ne euh, ku amul cinquante camions parking bu toll noonu doo soumissionné doo mën a ñëw bokk ñu naqarlu loolu nag est ce que loolu tamit euh, du favoriser surfacturation wala kumba am ndey kumba amul ndey loolu la waa forum civil wax yow tam est ce que jàppoo loolu. man li waa forum civil wax dama cee ànd. ñun loolooy suñu gis-gis ñun li ñu jàpp mooy ci crise bi ñu nekk nii am na ñenn ci ci ñuy njiit dina ñàkk xel ba def li ñuy wax gangstérisme financier lan mooy fan la ñu teg ku cinquante camion doo bokk ci appel bi mu loolu déjà mooy boddi nañu ay doomu Sénégal yoo xam ni bokkuñ ci benn parti daan doole rek a leen tax a jóg boddi nañ leen ci appel d'offre bi loolu du dëgg du yoon discrimination la bu weesoo discrimination bi xanaa ñoom dañoo lal leneen pour xaalisu réew mi xanaa yéenewu ñu ko doomu réew mi pour man distribution kese ku am camion bokk ci appel d'offre bi remplir conditions yi jox ko jarul xëccoo et le forum civil a bien fait et j'en profite pour féliciter leen ci seen liggéey ak seen taxawaay ndax gis nañ ni que lu mu metti metti ñoom ñi ngi ci taxawaay bi ñamoon démb ak barki démb mooy maanaam transparence dans la gestion des affaires publiques li ma jàpp nag fi may daanelee mooy réew bu demee ba toll foofu ñoom dañoo war a xam ni que crise de confiance la sénégalais yi di dund par rapport à leurs autorités loolu dafa ñaaw dafa doy waar te nañu góorgóorlu ba nga xam ni euh, dinañ ko daal dabu ci séddale bii ñu nekk te na lépp jaar dans la transparence parce que loolu rek moo fi xaj. Mhm. d' accord ñu ñëw ci wàllum ndimbali nag euh, ci la ñuy des ba tey parce que yéen moom yéenay waa alerte yëglu gi da ciy da ciy baax ñu ñu ñëw ci wàllub ndimbali euh, courant bi ndox mi ñenn ñi jàpp nañ ne dafa des parce que mu ñu waxee ñi nga xam ne ñoom ñooy cas sociaux yi ñoom dong la ñi nga xam ne du ñu dépassé nangami kilowatt heure. Mhm. ñooñu bu ñu ko ñoo ñu bokkatuñ ci bëgg a toogloo ñëpp seen kër dafa waroon a yaatu. yow loolu nga jàpp wala yow jàpp nga ne ñoom ni ko doxalee noonu la. man damaa jàpp ni. alalu Sénégal ñu ñëpp a ko bokk. buñ koy séddalee waruñu ci boddi kenn donte nag amet bu ñu waxantee dëgg am na ñoo xam ne ñooy priorité. ndax euh, ki nga xam ni moom loxoom jotul ginnaawam ba mënul fay facture bopp deux cent cinquante kilowatt heure. état bi ne ñooñu tranche social la ñu bokk dañ leen di dimbali. man dama cee d'accord pour ñu dimbali ñooñu. ñooñu dañoo néew doole waaye ku ci mel ni ay dara nga xam ni am na climatiseur këram otoom néegam ba ci waañ ba waa ku mel ni yow état warul la jàppale Aidara te bul ñaan ma jàppale bu kenn génn bi moom bu kenn génn bi moom mooy li ma wax nee naa leen confinement boobu ñuy woote mënuñu ci jublu feeg mesure d'accompagnement yi wërul Sénégal wërngal képp loolu moom c'était clair. waaw ah, loolu dinañ ci dellu mais ci factures yi. ci factures yi. yow bokkoo ci tranche sociale Ahmed yàlla dimbali leen sama exemple yooyu nag pour nga naan bokkuma ci waaw d'accord yow kay neel rek am na yow kay tuddal ministre yeeg yooyu wala bugaan ci boppam bugaan Gueye Dany bokku ci ñoom bugaan Gueye Dany Aly Ngouille Ndiaye bokku ci ñoom Baba Diaw bokkuñu ci waaw kay te alhamdulilah kon ñooñu buñ leen fayal waaye ki nga xam ni njàngu doomam tere na ko nelaw euh, ngénte jafe na ko ut lu muy loué bay fay sax trois mois caution amu ko amu ko kooku état bi bu ko mënee jàppale ñooñu la état bi war a jàppale mooy li tubaab di wax euh, discrimination positive dañ koy nangu tey bu ñu génnoon fii ñu war a xëccoo man 10 000 francs ak sa benn caméraman du ko xëccoo dama ko koy bàyyil nañu nangu loolu am na réew mi ñoo xam ni yàlla dimbali na leen waruñu leen fayal ndox waruñu leen fayal courant ndax yàlla wërsëgal na leen. bu confinement total amee. mais bu confinement total amee sax duñu leen ko fayal mais bu confinement total amee nañ leen dimbali ci li ñuy dundee. parce que dund bi moo am solo parce que munoo tëj kilifa tëj njabootam ba pare ne leen duma leen jox lu ngeen lekkee confinement bi sénégalais yi bañuñu ko mais na nguur gi góor góorgóorlu ba nit ñi am lu ñu dundee parce que gis nga ay dara karaara bu nekkee dund bi chaîne alimentaire bi dafa dagg yow doo nangu toog sa biir kër kër gi nekk en face am ay saaku ceeb yow amoo loo dundal sa njaboot da génn xeex ñoom bu boobaa day nekk xeex diggante ñi ndóol ak ñi am te loolu mën nañ ko moytu fi mu nekk réew mi moo toll ci situation bu day waar nguur gi dañoo war a yaatal seen instance de décision yi yow nguur gi fa ñuy naseeg ci war nga fa mën a toog bu ñu waxee pare nga leen ah man Ahmed ay de lii laa gis maa ngi dem nag daf leen li dal seen xel ndax fa la réew mi toll mais ñu bëgg ko téye ñoom kese seen biir loolu du sotti parce que bu ñu juumee rek boo moytul musiba lay jur te kenn ñaanu ko ci situation bi mu toll ndax feebar bi ñun ñëpp la concerné feebar bi ñun ñëpp la mën a yóbbu feebar bi Sénégal yëpp la tiital kon ñoom seen instance de décision yi nañ ko yaatal nañ ci boole la presse nañ ci boole les chefs religieux. ah moom recevoir na ñoom di ah enfin recevoir na ñu bëree bëree bëri. waa recevoir na ñu bëree bëri. mais xam nga crise bi. vu que jàngoro bu bees la xamuñu ko chaque jour dañuy dundu situation bu bees moo tax mu war a di consulter de façon permanente ñooñu ma lay wax noonu njiitu diine yi njiitu aada yi euh, kuréelu jigéen yi euh, yéen communicateurs yi yéen les éléments de la presse pour nga xam ni juumteel du am te mu bañ a fàtte société civile bi ak société civile ah. d'accord ñu des nag euh, ba léegi nii am na ay côté yoo xam ne tam léegi-léegi am ñu ko xaw a fàtte lu mel ni école privée bi loolu tamit euh, yéen en tant que euh, mouvement alerte affaire boobu tam xawulee na suñu waxee ne dinañ ñu génnee temps pour transport. Mhm. temps pour presse temps temps temps pour léeg léeg lii kon mais ñu nekk ci école privée bi aussi bu gaa yi jàngul duñ fayee ko ñu bëree bëri dañoo loué. xam nga école privée boobu. man jàpp naa ni Sénégal la ñu bokk. ay sénégalais lañu. ba pare dañoo dimbali sax état du Sénégal ci njàngale bi nga xam ni moo leen war. ñoom ñu dem créer ay école pour di jàngale kon école privée boobu nguuru Macky Sall da leen war a dimbali parce que ay sénégalais lañu ñu amet gis nga situation bi ñu toll ki bokk APR kii liggéey des médias ak ka alerte ñoom ñëpp a yam ay sénégalais la ndimbal bu waree jóg na leen muur ñoom ñëpp parce que école privée bi tamit ñin ñi bu ñu fayul ñoom du ñu am lu ñu fay seeni employé te bu boobaa musiba naaru lay lay jur ndax réew mi kenn jencu fi ay millions bu nekkee ah astafurlaa xanaa nga doon politicien ñoom kenn na fi jenc ay millions yu bëri enseignant jencul million léegi enseignant bi que mu nekk secteur privé wala secteur public nguur gi ndimbal bi na laal enseignant bi nekk secteur privé parce que budul loolu di musiba lay jur te ñun waa alerte dañuy ñaan nguur gi ñu fàttali rek ni ka enseignant wu secteur privé yi ay doomu Sénégal lañu nañ leen ci boole ci ndimbal boobu ba nga xam ni seen liggéey lu mu sooxe sooxe amaana dinañ am lu ñu yóbbu seen kër. d'accord avant ñoo dem nag euh, ci lu jëm ci wàllub euh, secteur privé national beeg euh, société étrangère yi cas communautaire yi ñoo xam ne jàngoro bi daf leen di dal te duñ xam fuñ ko fuñ ko ko jëlee ñu bëree bëri daal wax nañ ne loolu rek war na tax ñu fa nit ñi. Mhm. waaw xam nga cas communautaire yi amet man damaa jàpp ni ñun waa alerte bokk ni ñuy def man fi ma dëkk Liberté sis du jóg ci di leen sensibiliser amaana amet bu defoon noonu géejawaay keneen daf noonu ca pàccam keneen daf noonu ci goxam xëy na gox yi ëtt yi ak diwaan yi léegi ñun ñëpp ñu dajaloo xam feebar bi lan la ñu mën a lore naka la ñu mën a gaañee cas communautaire yooyu nag dañ dafa nekk loo xam ni dafa doy waar lool te looloo tax sax euh, ba nga xam ni fi mu nekk nii nguur gi bu ne woon day dem confinement kenn du ko bañ ndax nga feebar te xamoo ku la wàll nga feebar te xamoo feebar bi foo ko jëlee nga feebar te mënoo joxoñ kenn mais loolu dafa doy waar Amet man maa ngi nii Liberté laa dëkk damay ñëw Géejawaay yow Géejawaay nga dëkk da ngay dem Plateau da ngay dem Sanneer da ngay dem almadi alors bu nekkee contrôlé wuñu situation bi ëllëg dañu nar a yeewu rek gis explosion ndax lii ma gis muy raam diggante yëmbal ak Kër masaar ça fait man daf ma tiital te xam naa ni tiital na ministre bi tiital na njiitu réew mi muy Macky Sall Kër masaar lu tax mu tiital ma ak yëmbal dañoo jege mbëbës mbëbës ñi fay liggéeyee ngoon si dañuy dellu si yëmbal la dëkk Kër masaar lañu ñu dëkk route de Kër Mbay Fall ñaqirat dañuy dellu si te ci kër yooyu ñuy dellu si ñooñu dañuy ñëw liggéey si Dakar kon lu ñu war a contrôler la mos naa ci interpeller le ministre Abdou Karim Fofana mi nga xam ni sama rakk la may rafet lu liggéeyam lool mus naa ko interpeller ne ko kaawu mbëbës da nga ko war a xool et man dama def lieson entre cas yi ñu gis Kër Massar ak situation bi nekk am mbëbës mbëbës ñëpp xam nañ dafa nekk may fàttali ni mbëbës diggante mille cinq cent ak mille huit cent sénégalais ñoo fay liggéey am ñu fa dëkk am fa kër di fa jur ay doom kon dañu war a vérifier bu baax situation wu mbëbës parce que bu explosé ñun ñëpp lay gaañ. Mmh. waaw. d'accord ñu dem publicité dellu si waat jamono jii ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gën a faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saasu su ne Setex saabu liquide la bu te gaaw a di dindi bépp saleté ak microbe bàyyi ñu ak xet gu neex disponible chez Casino U Utile U Express Auchan et Exclusive ci yenn réew yi feebar bu ñuy wax coronavirus muy ràññeekoo ak yile màndarga jafe-jafe ci yi yaram bu tàng sëqët àppat ñii mu gën a sonal nag mooy tu tànk yi mag ñi ñi dëkkaale ak jafe-jafe yi ak ñi seen wér-gu-yaram sooxee ngir feggu ci jàngoroy coronavirus bi ministère bi yor wér-gu-yaramu askan wi moo leen di fàttali yii di faral di raxasu ak ndox ak saabu di sëqët ak di tissooli ci mouchoir te boo ca noppee nga def ko ci biir mbalit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 ki yi ginnaaw publicité ba nag euh, ñu dellu si ak ak euh, Cheikh bu Diop mi coordonnateur bu alerte ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum soutien woote bi nga xam ne président de la république woote na ko ku ci nekk daal yaa ngi euh, def loo man waaye nag yéen waa alerte gis nañ daal maanaam ñu société étrangère yi taxawoo daal yéen xawoo leen koo rafetlu. waaw li tax rafetlu ñu ko mooy ñun waa alerte dañoo génne suñu poche dimbali. joxe gel hydroalcoolisé joxe masque joxe lu ne ci goxu Liberté 6 waa Liberté 6 ak may dégg mun nañ ko vérifier waaye dañoo gis ni société étrangère yi nga xam ni ñoom ñoo nekk au Sénégal muy Total muy Orange muy Eiffage ak ñeneen ak ñeneen ñoom ndimbal bi ñuy dimbali sénégalais yi ci jamono ji ñu toll nekk ndimbal boo xam ni dafa néew lool amet amet société waaw société bu mel ni Orange deux mille dix neuf cent quatre vingt seize milliards cinq cent millions la def comme bénéfice xam nga luy bénéfice mooy boo fayee say salaire fay courant fay ndox fay lépp lépp lépp ba mu jeex cent quatre vingt seize milliards cinq cent millions di Sénégal ne dafa soxla parce que dañu nekk ci tolof tolof deux cent cinquante millions de francs CFA lañ orange joxe. deux cent cinquante ci ku def bénéfice daaw cent quatre vingt seize milliards cinq cent. Ahmed loolu dafa yéeme total mi nga xam ni ñoo taxoon président Macky Sall dàq Thierno san sal total mi nga xam ni fanweeri at ñi ngi si total mi nga xam ne autoroute à bi benn station essence mënu fa nekk lu dul ñoom total boobu 200 millions la joxe laaj ma 200 millions yi naka la ko joxe. carburant mooy yéenewuñu ñu sax jox xaalis. Eiffage bi nga xam ne moom lañ defal concession autoroute à vingt 25 ans 25 ans lu neex la ñuy def. deux cent millions lañ joxe Ahmed y a problème suñu secteur privé national bi nag. gàcce ñooñu six cent cinquante millions lañ joxe. loolu lañ joxe li ñu joxe du dara. Sénégal ñu dégg ne am na benn nit sax buy joxe deux cent millions. non ba ak ko joxe un milliard. baara baarataal xam nga lu tax man joxe baarataal yéem ma. Hmm. man xaw ma baarataal Ahmed. baarataal benn noonu laa ko mos a gis le 23 juin à part ça mosuma gis baarataal wax leen ma ban marché la gagné bi fi Macky Sall nekkee ba léegi. dara. ah moom àndul woon ak ñoom gañe mais waaw mais joxuñu ko dara. gañewul benn marché waxal benn baarataal bi Sénégal soxlaa jël na 200 millions ak hôtelam ne nguuru Sénégal am leen daf leen ci lu leen neex laajuma leen dara. Hmm. kon kooku patriote la. bu ñu xoolee ci beneen pàcc Jean-Claude Mimran ak compagnie sucrière 1 milliard 600 lañ joxe. segu 1 milliard la Mimran jox ministre des finances ba pare. dans le nord du Sénégal Saint-Louis Richard Toll Ross Béthio Dagana 600 millions lañ fa joxe en don compagnie sucrière dem na bay jënd ay émissions dans le radios du nord pour nit ñi di sensibiliser mu leen koy may Tahirou Sarr joxe na un milliard Babacar Ngom Sedima joxe na un milliard te pourtant ñooñu la Macky Sall waroon dooleel doomu Sénégal bi fiy liggéey di employé ay sénégalais xoolal yéen liñ leen def Bougane Gueye Dany ak Joni Joni dañ leen xeex yemuñu fa dañu dem xeexi Kabiru Mbodj wari wari kabi fi mu nekk fi mu nekk mais wari mais mais benn tànk lay doxe kat Kabiru nekk jàmbaar rek te Kabiru boobu yëkkati na juróom fukki million am joxe Bougane jël service publicitaire u des médias yëpp ne leen may naa leen kaay leen publicité ngeen nekk ci rajo beeg télé bés bu nekk di wax coronavirus di yee nit ñi te pourtant dañ ko xeex secteur privé boobu tey damaa bëgg bu ñu génnee ci lii yàlla nañ ci yàlla génne jàmm président da leen war a dooleel dimbali leen parce que ñooy doomu Sénégal tubaab yamu yaakaaroon dañ ko mbas moom fi mu nekk ñaari mbas ko dal mbas mi dugg ci réew mi jaxase lépp ak tubaab yi mbas bañ ko mbas parce que président Macky Sall ku ko ne woon dina sauver Alstom jox leen terre bi ñu ne déet euh, euh, mu jël orange defal ko ay euh, réduction de taxe ak impôt ay ale mais ba pare orange boobu taxaw deux cent cinquante millions la la yéene orange milliards yi muy wax joxe na ko laaj laaj ma mooy lan SMS yi ngeen di recevoir ñu leen di waxu coronavirus mais waa orange kan la ñëpp Auchan bi mu fi indi mu ndolloo commerçant sénégalais yëpp ana Auchan lan la fi Auchan def SGBS banque BICIS ay banque française lañu Sénégal moomu ko lan lañ def dara Gérard Sénac moom yamatul kese ci autoroute à léegi day am sax ay marché autoroute ak tabax bâtiment ci état du Sénégal cent millions baara taal ndeysaan dara lañ ko defaralul moom moo yëkkati 200 millions ak hôtelam jox ko Sénégal amet nañu xoolaat mbir mi. ah te ñu ne président moom kontaanul sax ci li gars yi joxe dafa ndaw. waaw mais président bu ne li secteur privé sénégalais bi joxe dafa ndaw mais kon moom. marché yi mu jox turquie marocain yi indien yi français yi mais chinois yi mais ana ñooñu lan lañ joxe. ah nee na secteur privé national bi bu bu bu Maroc bi rek ñooñu rek laal nañu ay deux mille cinq cent milliards. waaw xam nga lu tax Sénégal soxla mille milliards. xam nga lu tax. waaw Mohamed Ciss yàlla def na. Euh, bi ma koy xam nekkuloon buur Mohamed Ciss dafa bëgg réewam Mohamed Ciss dafa dimbali secteur privé marocain bi Ahmed suñu secteur privé mooy secteur privé bi gën a ndóol ci àdduna bi parce que dafa mel ni nguur gi da koy xeex mais dama leen di laaj pour gere ay aéroport ndax jal na ñu jëli français ay aéroport AIBD benn français moo koy gere ñun suñu port ñun munuñu ko gérer Bolloré ñun li baax yépp Sénégal Macky Sall jox na ko ay étranger ba pare kenn du wax ba ci suuf si léegi indien yaa ngi fi di bay suñu suuf réew chinois yi ñu ngi fi di bay suñu suuf réew mais loolu munu patriotisme économique président Macky Sall moom la amul président Macky Sall gëmul réew mi. ah gëmul réew mi déedéet. Ah, doomu réew mi. maa ko wax gëmul réew mi gëmul doomu réew mi président Macky Sall bu gëmoon réew mi ak doomu réew mi quelle soit divergence politique bi nga xam ni moom la am ak D-Media moom la am ak Bougane du nangu jooni jeenu jooni jooni daanu. war yi buñ ci jàppul ci daanu la jëm pour lan orange moo ne kese des si mais nañuy xalaat orange moo ne seen xaalis bi ñu am France dañ koy yóbbu. mais est-ce que mais mais mais est-ce que euh, société étrangère yi tamit nga xam ne dañoo côté en bourse est-ce que ñooñu tamit li ñuy def tamit euh, du dundal tamit état. xam nga dundal état. Hmm. secteur privé national bi. yow sa salaire. ñu ne total sa salaire laax. waaw liñ la ciy génne ci xam xam nga ci trésor la jëm. waaw yow ak liggéey D-Media euh, Zik FM ak feneen ak feneen mais ku dimbali woon Bougane mu def li multinational yi di def ku dimbali Kabirou Mbodj mu def li multinational yi di def ku dimbali Aziz Ndiaye mu def li multinational yi di def ku dimbali Elimane Lam mu def li multinational yi di def ku dimbali Tafa Dia Sipa mu def li multinational lii di def. nañu te dëgg ñooñu état dimbaliw leen te góor góoru nañu ba taxawal seen bopp. ñi ma fi lim yëpp wax ma état lan la leen defal defalu leen dara amet balaa ma dimbali koo xam ni bokkul Sénégal ma dimbali sénégalais bi mais xam nga gouvernement bi tamit ñoom loolu loolu la ñuy loolu la ñuy dundee impôt yeeg yooyu parce que revenu ci bénéfice beeg yooyu nga am cinq pour cent euh, euh, euh, nu mu TVA bi ñëw 18 pour cent yow société yi ñu tuddee yu Sénégal yi côté wuñu en bourse ñooñu daal dañuy toog yor sa société fii sa jabar moo fi ne fee sa doom lu am yow kese état bi amul dala alors que ñee dañuy dem côté en bourse seen lépp leer nañ lu génn état bi xam ne maa ci am lii est-ce que loolu tamit du problème. waa léegi est-ce que amuñu ay affairiste gënu lu bëri que société euh, euh, privée nationale comme ni nga koy waxee. Ahmed si yooyu. bu nekkee sax dañuy njublan te wóoruma. ci impôt bi. ak taxe bi. affaire yi yooyu seen xaalis génnul fii la des Sénégal li ñam Sénégal la des Ahmed imagine woon benn sénégalais moom orange daf bénéfice daaw cent quatre-vingt-seize milliards cinq cent mais lu mu dee dee cent quatre-vingt-dix milliards yi fii lay des Ahmed Ahmed ñun dañu am lu ñu xam muy suñu culture muy suñ cosaan sa kër gi chaque jour ñit fëgg la wax la soxlaam doo ko xam sax yenn saa yi nga faj ko mais léegi bu nekkoon yow fa ngay liggéeyee dañ ko xeex ba loolu ndërmeelu mais li ñuy dagg ci con ci chaîne de dimbali bi am Sénégal mooy doy waar ba pare au contraire man pour man multinationale yooyu ñooy sàcc état bi multinationale étrangère yooyu ñooy sàcc état bi nañu dem def un audit sérieux fiscal de Orange audit sérieux Eiffage ak ñeneen ak ñeneen di nga ci gis loo xam ne mosoo ko xalaat man Sénégal laa gëm secteur privé national sénégalais bi laa gëm xam nga yow sama digganteeg waa UNACOIS man jubóowuma ak ñoom chaque jour ma sànni leen xeer waa UNACOIS mais ñoo ma gënal tubaab yi fi ñëw indi Auchan tey pare naa pour xeex pour quoi nekk structure bu am doole structure indépendante boo xam ni état day créer banque nationale bu koy accompagner pare naa pour xeex ci loolu parce que xam naa ni ay sénégalais lañu te li ñu am Sénégal lay des. gars que ñu ngi fay. mais mais ñi ngi fay. koo ci gis ñu indil la fisc gaayen nga yenn sa bopp bi ñu lay dóoral ay moratoire ñee nag ñoom dañuy ñëw indi gaayen ne la ñun bénéfice cent quatre-vingt-seize milliards ñu ne la d'accord léegi trente-cinq pour cent état moo ko moom te fayal ñu génnee fay kart gi leer état bi am lu mu fayee ay salaire am ak lii ak lii ak lii. waaw léegi yow pour yow est-ce que sa yi ñu ngi fay. pour yow secteur national bi. pour yow secteur privé national bi fi nekk nii bu ñu fay loon euh, nguur gi fexeelu leen. ñi ngi fay mais munuñu fay li multinationales yi di fay parce que nguur gi dimbaliw leen mais Ahmed xaaral ma jox la exemple bi gën a yomb mais moom laa lay expliquer nii Sénégal dañuy dem produire par exemple soble mhm. nguur gi au lieu que mu arrêté importation soble mu mel ni yoonam nekku ci ba pare ñun Sénégal dañu bokk organisation mondiale du commerce ci biir organisation mondiale du commerce dafa am ay levier mhm. benn bi mu ngi tudd mesure de sauvegarde mesure de sauvegarde man mi nekk Sénégal bu may produire par exemple euh, ay vélo beneen sénégalais bugg importer ay velo te importation boobu dafa nar a rendre wala mu déstabiliser sama liggéey man mun Sénégal mun na utiliser mesure de sauvegarde ne velo du fi dugg Sénégal lu muy xaar pour utiliser mesure de sauvegarde pour ne soble dootul dugg Sénégal pour ne ceeb dootul dugg Sénégal Ahmed Ahmed réew boo ko bëggee da ngay bëgg doomu réew ma ak la ñuy liggéey ba pare góor góorgóorlu ba waa réew ma di ko njëriñoo mais bon comme que moom c'est vrai que moom du lekk li ñuy produire Sénégal président Macky Sall alors du ko jëfandikoo alors yoonam nekkul président Macky Sall ma ni li ñuy produire Sénégal du ci lekk ah, li ñuy li ñuy liggéey ah, Sénégal Sall woo la ci consommons local waaw mais consommons local moom moo koy njëkkee xam ah, nga yow kan moo leen ne président Macky Sall tamit la xam nga li gën a xam nga li gën a bon ci consommation locale waaw mënoo sal costume boo xam ne Europe nga ko jëndee di wax nit ñi consommation locale amet bu ñu naxante mais du loolu kese non dafa consommé wul local xamul euh, président bi gëmul réew mi loolu laa bëgg ngeen xam parce que bu gëmoon réew mi day gëm secteur privé national bi mais secteur privé national bi instant bi ci mbas mi wàcc fii Mm-hmm. li mu def nii bu bëgg bu leen bëggul woon tey est-ce que ndimbal dina dugg. waaw mais li wax ci wàllum impôt secteur privé national bi li ñu joxe. so yow multinational ya ngay tiitaru major yooyu joxe ñu ko yow yaa ko fex léegi bañ a dajaloo six cent cinquante millions la alors que Tahirou Sarr moom kenn joxe na un milliard un milliard yooyu nag ndax état da ko waroon jël wala état waru ko jël parce que Tahirou Sarr mi ngi ci yoon pour ñu seet ndax alal bi mu yoree lu lew la wala lewul kon mun nañu poser question ci éthique déontologie est-ce que état waroon na jël un milliard Tahirou Sarr mais bu loolu weesoo un milliard Babacar Ngom Sedima kenn mënu ko lam moom kenn moo ëppale orange li mu joxe ëppale total li mu joxe ëppale Eiffage li mu joxe mais nañ ko seetaat amet mbir mi du naxee mbay neexul dégg neexul dégg saway oh, ñoom ñett ñëpp bu ñu leen boolee six cent cinquante millions lañ joxe amet mooy Mimran raw na leen Babacar Ngom Sedima raw na leen Tahirou Sarr raw na leen euh, baarataal sax raw na leen ndax moom deux cent millions ak hôtel la joxe saa yi ci ku gañewul benn marché ci ku gañewul benn marché ñu sonal ko fi gis nañ ko mais bi Sénégal soxla bi Sénégal woowee ay doomam dafa jóg taxaw ne fii laa bokk d'accord euh, coordonnateur am na leneen loo xam ne nag euh, wax nañ ko fi nii dawal ay vidéo bon mais am na ñoo xam ne moom dañoo jàpp ne yooyu daal xam naa ay rajo kankang la waaye xanaa ñun suñu njiit yi ñàkkee wuñ noonu wala tubaab yi yabee wuñ noonu war a am ay garab ñu war a essayé ci ay nit ëpp nañu ay ñu corona fop ne nañ leen ko yóbbu Afrique ñu essayé ci nit ñu ñuul ñi yow loolu gëm nga war a mën a nekk la wala. waaw ñun waa alerte gëm nañ ko. Ah euh, parce que jàpp nañ ni rek euh, suñu njiit yi indépendance ba léegi tubaab bi la ñu gën a liggéeyal ko Sénégal loolu moom kenn du ko weddi Eh, waaye nañu xam génération boobu amu fi amatu fi et j'en profite pour lancer un appel au peuple sénégalais ku ngeen di gis mu leen di wax waxu vaccin jàpp leen ko dóor ko ba mu tàqal ko mesagom waaw même bu dee sénégalais mais waxuma même bu dee président Macky ñu jàpp dóor mais mais président Macky na jël vaccin wala muy wax waxu vaccin di ko jëmalee ci askan bi waaye na vacciné Amadou Sall doomam na vacciné soxnaam Adja Marème Faye Sall na vacciné ay ay ministre am vaccin wu lan Sénégal boobu amatul bu njëkk ba suñu maam yi nga doon nax tubaab bu fi taxaw wala njiitu réew mi ku fi mënta taxaw ak koo mënta doon ndoom ba tànk boo mënta yor di fi wax vaccin yéen sénégalais yi maa leen di invité maa ngi leen di demander duma leen ko. mais est-ce que loolu yemul yemul ci wax nii rek duma leen ko. te du yaa fi wax léegi nii tubaab yi. xam nga ne yooyu noonu weesu na pourtant looloo ngi am ba tey tubaab yaa ngi nii ñëw gagné sa marché yëpp te yow mënuñu laa jox sax 700 millions bu xam nga gagné marché. loo ci mën ak gagné marché ak vacciner nit par force du benn. ah. man fayda bi ma la xamal. ku fi taxaw géejaay di wax vaccin doo ko nangu. d'accord waa waaye bi ñi ma xam man waa géejawaay ku fi taxaw di wax vaccin ñu def la vaccin ñoom. waaw <laughs> ah, d'accord stratégie bi ñu def. ba fat nit ñi ci biir kër yi. 20 heures 6 heures du matin. waaw mais xam nga loolu. man dama ko état la laa wax. waaw mais état état dafa am loo xam ni mënu ko volonté populaire moo ëpp doole ambition état Ablaye Wade nekkoon doolee ci moom dafa dem. Abdou Diouf nekkoon na fi sénégalais yi bi ñu doolee ci moom dafa dem. volonté populaire. volonté populaire. Macky Sall ban volonté populaire nga mës a gis boo xam ni Macky dafa dellu ginnaaw. mais yow Macky Sall Macky bi mu fi tëjee rek Guy Marius Sagna bi ñu ko xooxatalee dafa dellu ginnaaw. xoxatal waaw ah, dañ ko xoxatal dem ba buntu camp pénal mu dellu ginnaaw coordonnateur Guy Marius Sagna yàgg na ci kaso bi yàgg na ci kaso bi mooy lan xoxatal moom moo tax mu génn waaw ah, xoxatal pression ah, moo tax mais attends mais ñoo lank liggéey non ma rek amee Macky Sall moom nit mën na koo contre lu ne daal waaye xam naa ne daal euh, xaw ma fulaak fayda ji laay wax xaw ma njàmbarte gi moom ah kooku kay moom sawaay nañ ko ko nangul Macky Sall bëgg a def lii Ahmed fipp populaire wala opposition bu taxaw xeex Ahmed bu nekkoon fulak fayda tubaab yi duñ ko jàpp di ko wax defal lii muy def. tubaab yi ñoom ñoo ko defal lii muy def. waaw ah bon mais mais c'est la vérité. yow da nga mës a gis tubaab yónnee ab tweet wala dara ne ko ma kii defal lii mu def. mais soxlawul tubaab yónnee tweet. Ah dangay ngay ubbi sa bët rek xool. CFA bi bi mu fi taxawee di ko défendre tubaab yee ko wax. non xaaral rek pare gu ma. waaw tëjalul tubaab yi seen frontière. waaw may ma may ma rek rek. tubaab yi jël si wuñ seen i doom. waaw xaaral rek. mu tëj frontière yi. waaw xaaral rek pareegu ma. tubaab yi buñ ko neex damal Gàmbi xeex Yaya Jammeh daf ko daf may ma rek pareegu ma. Yaya mais mais ma rek. loolu CEDEAO wala wala mais mais CEDEAO lan. mais tubaab yi ñëw ko décidé CFA bi li tax mu nekk fi ba tey tubaab yi ñoo ko décidé Macky sàll tubaab yi la gën a gëm tubaab yi lay liggéeyal. liggéeyul pour askanu Sénégal. et et heureusement. Cheikh Saad Baye li ngay wax tubaab yi ñoo koy fal. heureusement sénégalais yi comprendre nañu loolu bañ na ko ba yéen ñu nekk ci presse bi faydaalu leen boo amee lu am fayda la muy wax ca presse tubaab yi lay dem ah, wax ko mais non non loolu du soit loolu mooy won ni ah. yëgul réew mi gëmul réew mi mais affaire vaccin boobu moom. Hmm. Amet na ko teg ci suuf. Macky Sall bu buggee nguuram yam fi na wax waxu vaccin sénégalais yi tubaab yi ñoom ak seen i feebar yu bëri tubaab yi ak seen i nombre de morts yu bëri ñoom waxatuñu vaccin ñoom ñu ne vaccin bi fi lañ ko essayé fii njiit politique bu fi wax waxu vaccin sénégalais yi duma la dañ la dóor waaw d'accord kàddu gu mujj gi nag euh, mooy fi mu nekk nii nit ñi toog restez chez